jëf mbokk mi ala kulli halin yow mi nga xamne da nga am jafé jafé ci walu nalaw wala jafé jafé ci walu fatima ba mënoo nalaw ay ciona tektal bu ci am solo nak wutal ngun-ngun ak nana nga bolé len baxal insha Allah rabbi nga bolé bo amé kaasu mati. mat yi nga nan ci kaas bam fess wala digg kaas insha allah rabbi ko am jafé jafé nalaw mën nga ko jëfëndiko mooy ngun-ngun ak naanaa ngay boole naan baxal ba mu baax nga def ci suukar naan incha allah rab bu doon coono la eh, yàlla dina la ko teggi léegi bu dee jafe ci wàllu nalaw incha allah rabbi kon di nga nalaw nalaw yu jéggi dayo ndax nalaw ci doomu aadama la book kon stress ak yenn coono yi dana la jàpp ba teelaa nalaw kon ngun-ngun ak naanaa baax na ci yow mbokk mi nga xam ne danga am gàllankooru mën a nalaw ngun-ngun ngay wut ak naanaa booy leen def ci ndox baxal leen ban àgg incha allah rabbi nga ut kaasu ndékkikaay yi naan ci kaas wala digg kaas incha allah rabbi di nga nelaw te coono bi nga xam ne moom ngay jànkuwanteel sun borom dana la ko teggil ci ñoom gën a gaaw allah.